ñu ngi nii toog ci ak Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Mouhamadou Lamine mi nga xam ne moom la ko ñëpp di xoole mu nuru ko ci jikko nuru ko ci bind nuru ko ci laabir gi nga xam ne kuy wax ci Cheikh Mouhamadou Lamine faawu laabiram ngay wax sëñ bi nag jamono ji fi ñu toll euh, euh, jaaxle dikk na lool ci li fi xew daaw ba ren ak li fi xewaat ci fan yi te Serigne Fallilou Mbacké nee na woon maay Sénégal li Serigne Fallou waxoon ne mooy Sénégal moom da koo loon fu nekk bay na fa tollarul ëllëram ba ngir liggéeyal fa Serigne Touba ñu bëgg na nga sànni ay kàddu jëmale ko ci bis bu tedd bi nga xam ne ñëpp dañ ko ciy fàttaliku te ko fi dikk dikkoo fi ngir leble waaye danga fiy fay si bor bor boo xam mënoo koo matal loo mënta matal nag da nga cay dugal la nga am rek ñuy ñaan suñu borom yàggal la ci nga ñaan am nañ ci yaakaar da nga delloo nit ñi tamit ñu xam sëñ Touba xam Cheikh Mamadou Fadal ñu sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di feddali rek li waxoon ñun doomi bi lañu ñu tënku ci ndigal ndax kilifa ku tedd gi nga xam ne mooy xalifatul am dafa jox ndigal xalifatu Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Abul Baraka mu jox nu ndigal ñu tënku ci ndigal loolu nag te fasuñ ko yéene wàcc mooy lépp lu ñu digle ñu ne ko te fas yéene du ñu nekk mukk ci lu ñuy tere ndax talibé jëfëndigal rek ndax sëriñ bi tënk na ko ci ay bëyitam naan asidqu fi mahabbati sayyid habat zumam tisalu amrihi an warat wa tilku al-ihtiral mudlahan walaw bi baatinin alayhi fi ma xadra wa ma'ahu maaxahu al-ikhtiyar li usni sanhi bila inkar way nak fa kullu man jamaa si sifat min al muridin fa yalfiku shikhat biñ déggé lolu ba légui nak ñun fas nañ yéene jëfe ko mooy daal luñ dañuy bàyyee sëñ bi boppam bàyyee ko ak sunu bopp lépp lu mu digal ñu def ko te fas nañ yéene duñu nekk mukk ci loo xamante ne biir du ñu tere la moo waral màggal gi bi mu jubee ñu jëfe ndigal sëñ bi wax ne kat képp ku dib taalibe digal nañ la fa nga nekk nga jëfe ko fa jàng alxuraan salaatu ala nabi jàng xasida ñaanal Cheikh Mahamadou Lamine yàlla yokk ko fa ay xéewal ak mbooleem ñoom fa nekk ak ñi ko fa nar a fekk Euh, li nga xamante ne bi moo xew ci réew mi ak ci àdduna bi muy li ñu tuddee wéradi yàlla na ko fi yàlla jëlee ci àdduna bépp ci barke Serigne Touba barke Cheikh Maodoul Fadal barke Cheikh Maodoul Lamine li nga xamante ne bi mooy sunu buntu ci Serigne bi di sunu yaakaar ci àdduna ak alaxira ñaan it taalib yi nga xamante ne bi ñëw nañ fii ngir xër ñu xam ne ñooñu lu ñu fi wut si lépp yàlla na ko yàlla na ko yàlla na ko yàlla dogal ci barke Serigne Fall barke Alaaji Baara maa ngi sant yàlla bu baax nag ci bi ma yàlla dimbalee ba ma jëfe ndigal ndax kat ku ku amul ku jëfewul ndigal jëfee safaan te ku jëfee safaan réccu ndax iblis kat kilifa la waaye ñàkk a jëfe ndigal moo ko alal kon nag ndokk bi ñu yàlla xiiree ci ñu jëfe ndigal euh, ñu ngi ñaan nag jàmm ju ne béy ay xéewal yu dolleeku ci barke Serigne Touba barke Seydina Muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullah ah bi mën nga noo fàttali ci sëriñ Fallou bi muy toog danoo waxoon ne jamono ji dafa nekkoon ci xat xatak ak ay kii ak lan la waxoon ba jamono ji mujj neex ba ne fii. waaw moom daf koo dund ndax dafa wax ne dund na juróom mbenn fukki at yu teg euh, te lépp nekkoon ci ay jafe-jafe mu war a fasu ndeexee waaye bi yàlla dogalee lépp dikk ci loxoom daf naa ah, lii kat firug seytaane la fas fas ko yéene ne tàq la loolu nag comportement boobu nga xamante ne bi moom lañ dund nag moom lañ fas yéene ndax li mu fi nekkee ba ni mu fi jógee lépp lu yitee doomu aadama su duggee ci noppam yàlla faj ko sëriñ Baara mas na wax ne ma su ci sa barabu maam bi xam nga lu may ñaan ma ko ah déedéet mu ne ma du ma ñaan ay wér du ñaan gudd ñaan alal du ñaan dara loolu dama naan sama nopp bi bu ci aaju faju dugg xalaatam moo doonoon yéeneem ci bindeef yi moo waral nag xol yi ne des ci ndax képp koo xamante ne bi xamoon nga ko rek yaa ngi fas yéene di fedd li kóllëre si diggante moom mu daal ñu ngi ñaan yàlla bu ñu saytaane man ci liggéeyam bi bañ àggale ko fu kawe suñu njort ci barke yonent bi barke sëriñ Tuubaa barki sëriñ Fàllu ak dara jàmm asalaamaaleykum jërëjëf kon gracias.